أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñi ngi waat ak yéen ci kitaabu tawxid ñuy jël tey baabun laa yusbahu lillahi bi makaanin yusbahu fihi li gayrillah bunt bi ñuy jël tey mooy buntëb ñàkka dagan rendil yàlla ci barab boo xam ne lañ fay rendi dañ koy rendi ludul yàlla bépp barab boo xam ne dañ fay jaamu walla ñu fay màggal ludul yàlla barab boobu kenn amul droit jaamu fa yàlla moo tax mu ne laa yusbahu lillahi kenn du rendil yàlla subhanahu wa taala bi makaanin yusbahu fihi li gayrillah kenn du rendil yàlla ci barab boo xam ne yàlla dong moo dagan ñu rendil ko fa kenn du jaamu yàlla ci barab boo xam ne yàlla dong dong dong dong moo yelloo loolu ñu jël mbir mi jox ko keneen ku dul yàlla loolu dafa haram kon sunu darsu tey mooy ki koy déglu walla ki koy jàng mooy na xam ne pexe naafiq yi chaque jour mooy ñuy gàllankoor woote lislaam di fexe dendale yàlla ak leneen walla barab yu màgg yi nga xam ne yàllaa ko moom ñu sàkk yeneen barab yu mel noonu pour wëlbati jullit yi jëme leen ci barab yu mel noonu bu ñëwee ci madxal albaab dugg bunt bi dinañ gis ne azabhu lillahi bi makaanin yusbahu fihi li gayrillah wasila ila shirki fa alayna an nahzara minhu wajtinaabihi rendil sunu borom subhanahu wa taala ñu rendil ko ci barab yoo xamante ne lañ fay rendi du yëfu yàlla du lu jëm ci yàlla loolu jumtukaay la bunt la boo xam ne day ubbil doomu aadama yi ñuy bokkaale maanaam dem ci barab yi nga xam ne leneen lañ fa doon def nga bëgg faa jaamu yàlla loolu day yóbbu nit ci bokkaale kon li war ci ñun ñu moytandiku waaye ñu sori ko sunu borom subhanahu wa taala mi ngi jàngal ci saar bu tudd suratu tawba aya 108 qaala allahu taala laa taqum fihi abadan la masjidun usisa ala taqwa min awali yawmin ahaqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu wallahu yuhibbul mutatahirin aaya bi nekk ci suratu tawba aaya 108 borom bi subhanahu wa taala daf ñuy jàngal coup d'état benn coup d'état bu nga xam ne naafiq yi ñoo ko tëraloon ci jamono yonent sallallahu alayhi wa sallam fekk yonent tabax jumaa ji tudd Quba jumaa ji nga xam ne fa la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njëkk a jullee aljuma foofu la ñu farataale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juma mu ne sunu borom subhanahu wa taala di ñu nettali xabaar boobu xew-xew boobu naka la demee woon mu ñuy nettali xubsul munafiqina wa kaydihim mbanuk naafiq yi ak seenu pexe lislaam tey bu tollee nii ci yoon njox ñàkk doole néew doole tumaranke bokk na ci li ko daaneel mooy naafiq yi lu tax mooy naafiq mooy ki nekk ci biir lislaam di ko askanoo di ko tuddoo di ko mbubboo ci jëfi biteem waaye biiram gëmul lislaam moo tax lislaam sonn tey ndax li nekk ci ay naafiq ci ay jullit kenn mënu ko lim looloo tax diine ji mel ni am gàllankoor mu ne bana jamaa min almunafiqina masjid ad dirar benn mbooloo ci naafiq yi dañoo tabax benn jàkka boo xam ne waa lislaam ñu ngi ko tuddee masjidu dirar ba ñu tabaxee jàkk ji zaimina annahum banawhu banuhu li daafi almuslimina bañ ko tabaxee ñoom seeni xalaat ak seeni pexe lan lañu wax ci kaw lu ñu génn lan lañu feeñal mooy ñun de tabax nañ jàkka ji ndax jullit yi néew doole nga xam ne mënuñoo dox dox bu sari ñu mën a jullee fii waaye li yaqihim min al matari ak encore bu tawee kenn du tooyi bu sedd bu mettee sedd bi du leen lor lii ñu wax ci kaw ci biti tabax nañ jàkka ji ndax ku mënul dox dem fu sori tabax nañ jàkka ji ndax mu musal nit ñi ci naaj tabax nañ jàkka ji ndax mu musal nit ñi ci sedd lii ñu wax tabax nañ jàkka ji pour mu musal nit ñi ci taw lii rafet na wala rafetul ku ko déglu da nga naan macha allah waaye sunu borom moo xam li ci biir moo xam li ci biti moo xam lépp moo tax mu ne laa yaxfa alayhi shay'un fi lardi wala fi sama dara nëbbatuwul ci yàlla yàlla moo xam ñii lii ñu tabax lan lañ ci jublu jàpp naa ne tey bu ñu yàlla doon feeñu di wax ak ñun dina bëri ay jàkk yum ne toj leen ko ndax masjidu diraar la comme bi comme yooyu rek ñu tabaxoon comme yooyu naafiq yi tabaxoon mu ne walakin al xaqiqa ci dëgg dëgg dëgg xilaaf dafa am wuute zalika ci loolu faqad banu hadha al masjid tabax nañ jàkka jooju li mudaarati masjidil quba ngir gàllankoor masjidu quba li tafriqi bayna ahlihi ngir diviser jullit yi waaw diviser jullit yi wa kufran billahi wa rasulihi ak weddi yàlla ak yonent moo tax ñu tabax jàkk léegi moo tax moo tax il faut ñu def attention bëri na ku sos mbooloo wala woote jëme ci dara tudde ko lislaam yoral ko taaru lislaam fekk enfant ci biir am na lu mu namm wala am na pexe yu ñu tëral xam nga tey ci ñun kan moo ñeme fexe fekk benn waay bu tabax jàkk wala benn waay bu defar benn mbooloo mu rafet naag solo leen yére yu weex guddi ajuma yi fii nangam yi fii sikkar yi fii nga ni ñi ay yéeféer lañ ko ko ñeme waaye xam ngeen ne yéen ñi yéen a gën a xam ne yéen a ngi fii ci réew mii xam ngeen ne am na mbooloo yoo xam ne ñëpp ay yéeféer lañ te ñu ngi tudd lislaam xam ngeen lool ñii kan moo leen ñeme ne yéeféer ngeen yonent bi sax ñemewu ko woon te pare woon na pour inaugurer ji jàkka ji yàlla moo ko ne bul dem man maa lay jox information bi ñii ay naafeq lañ jàkka ji dañ ko tabax pour diviser jullit yi jàkka ji dañ ko tabax ndax weddi yàlla ak yonent faqad talabu min annabi demoon nañ ba sàkk ci yonent bi an yusalliya fiihi ngir mu julli ci ubbi ko ndeysaan walam yaalam sallallahu alayhi wa sallam bi qasdihim assayi yonent bi xamul woon gaa yi lañ ci jublu ba mu pare bëgg a dem kan moo ko téye sunu borom subhanahu wa taala ci la aaya bi wàcc nazalat hazihi l aaya fi xabari l masjid indi xabaar bi di ko yo xabaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naan ko la masjidun laa taqum fihi abadan bul ci taxaw mukk mukk mukk abadan mooy kañ bu ko ne woon laa taqum rek bu ci taxaw laa taqum fihi rek doyoon na bul ci taxaw waaye mais mu yokk ci abadan te jàkka la mais sunu borom ne ko bul taxaw ci jàkka ji abadan lu tax mu ne ko la masjidun usisa ala taqwa min awali yawmin ahaqu an taquma fii jàkk ji nga xam ne fondement bi première pierre bi brique bi bañ koy teg dañ ko teg ci ragal yàlla jàkk jooju moo yeey nga dem julli ji fa mooy masjidu Quba mu ne ko soo fa demee foofu fiihi nekk na fa rijaalun ay góor yuhibbuuna an yatataharu dañoo bëgg a laab nit ñu set nit ñu bëgg yàlla nit ñu bëgg yonent ñoo nekk ci jàkk jooju kon booy julli demal ci jàkk jooju wallahu yuhibbul mutatahirin yàlla bëgg na ñi laab kon fa am mbir yoo xam ne suñu bëggee mu leer ci ñun suñu bëggee dëgg-dëgg ngoy ci lislaam mooy yàlla moo nuy xabaar di ñu wax ay misaal di ñu won ay melokaan yoo xam ne ku ko def rek dañuy xam ne yow mii da ngay tuddoo mbir mi wala da nga koy woote wala da nga koy wax waaye du dëgg ci yow sunu borom subhanahu wa taala wàcce aaya bi di xabaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li xew fa baasa ilayhim rasul sallallahu alayhi wa sallam baadu sahaba li hadmihi wa ihraqihi bi xabaar bi wàccee sunu borom subhanahu wa taala tere yonent bi mu dem taxaw fa waxumalaak nag di fa julli waxumalaak di ko jege yonent bi yabal saxaaba yi ne leen dem ngeen ngeen toj jàkka ji ngeen lakk ma ne yàlla subhanahu wa taala moom dong moo ñeme xabaar li yonent bi sallallahu alayhi wasallam tey boo ko defoon jullit ñi ŋàbb la yóbbu la dëkkal la foo war te dëkk waaye lii yàlla moo ko ñemee wax parce que yàlla mooy borom jaam ñi sunu borom subhanahu wa taala mu mu ne والذين اتخذوا مسجدا درارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ñi nga xam ne dañoo jàpp jàkka jooju muy masjidu diraar def nañ ko pour lan kufran ndax weddi yàllaa tabax tax ñu tabax jàkk ji wa tafriqan bayna al muslim muminin ak diviser jullit ñi wa is wa irsaadan liman xaaraba allah wa rasulahu ak lan yokk doole may kàttan kuy xeex yàlla ak yonent ndeke kon mbokk yi ñaari aaya yi bu ñu leen di dégg dëgg dinañ gis tey ay mbooloo ci biir lislaam yokkuñu lislaam doole waaye dañ koy néewal doole dinañ gis ay nit tey ci jullit yi seen pexe yépp mooy daaneel lislaam te ñu ngi ci biir jullit yi moo tax lislaam li ko sonal mooy naafiq yi ci biir ñoo ko sonal xam ngeen ne Umar bokk na ci li ko rey naafiq yi Usmaan Ali ñi ñëpp ay jullit ñoo leen rey ah Omar ñu ngi ko rey julli fajar ci jàkk Usmaan ñu ngi ko fekk muy jàng alquran ñu rendi ko Ali ñu ngi ko rey muy muy muy defar sàppe ci julli te ñëpp ne leen rey ay jullit lañ ay nit yoo xam ne dañu ñëw dugg ci biir lislaam tuddawoo jullit di ji yuuxu ci jàkka yi di njëkkante di daw di buuxante sàppe yi fekk li ñu nëbb seen xol mooy nifaaq ay naafiq lañ loolu mooy mooy li ñu indil tey problème partout dans le monde ci dëkk lislaam yëpp ay nit ñoo fa nekk di mbubboo lislaam di yàqal jullit yi moo tax jullit yi duñu avancé pexe bu jullit yi tëral ñu feeñal ko yoon bu bëgg jullit yi bëgg a jaar ñu fàtt ko lu jullit ñi bëgg a samp ñu sempi ko bañ nañ ko sax ba dañu ne fariq tasud diviser pour régner dañuy diviser jullit yi rek chaque jour ñu diviser leen xoolal adduna bi yëpp ñëpp mun nañoo nekk benn ci leen ba mu des jullit yi lu nekk ni ñaa ngi ci nekk benn ba mu des l'islam 31 décembre kenn du ko musul musul ab ñaar kan ma musa yéen fekk ci yéen 31 décembre fu mu nekk deux nekkati sa loxo 24 décembre kan ma musa fekk ci yéen fu mu nekk deux pak mbooleem feet yépp dina nekk benn ba mu des feetu lislaam tabaski ñaata yoon ngeen fekk mu nekk ñaar ñett korite ah ay tam xarit sax yeneen yi sax waxi noppi yi nga xam ne sax lislaam santaane wu ko sax te ñu askale la ko lislaam sax nit ñi duñ ci ànd benn loolu moo lay wax ne mbir mi dafa am yu ci laxasu dafa am yu ci nëbb yu baree baree bari almasiyatu qad tusiru fi l ard bàkkaar day jeexital ci suuf moo tax yàlla di tere yonent bi di tere fu ñuy moyee yàlla nga ñëw di fa moy di fa jaamu yàlla ndax fu ñuy moyee yàlla barab ba day yàqu naha allahu taala rasulahu muhammad sallallahu alayhi wa sallam an salaati fi lmasjidi dirar sunu borom subhanahu wa taala moo tere yonent bi mu dem julli jee ca jàkka ja munoon nañoo wax ne jàkka ji deful dara barab ba dara nekku fa sell na gaa yi dañ ko tabax gaa ya bon mais jàkka ja bonut yéene bu sellul mbir mi du sell ndax innamal amal binniyat yéene bu sellul li nga defar du sell li ngay wax du sell li ngay def du sell li ngay jëf du sell ñooñu ba seen yéene sellulee moo tax yàlla tere yonent bi ne ko bul dem foofu bu fa jaamu yàlla ndax ñooñu la tax ñu def mbir mi baaxul parce que seen yéene moom baaxul moo tax yàlla tere ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li annahu limaada usisa ala maasiyati llahi wal kufr bihi dañ ko fonde ci weddi yàlla ak mooy yàlla loolu moo tax yàlla tere yonent bi ne ko bul fa dem fa dalla ala anna al amkina almuctaada almuhaada llaha wa rasulahu la tajuuzu alsalaatu fiha bépp barab bépp barab bépp place boo xam ne dañu fay mooy yàlla barab ba li tax ñu defar ko mooy mooy yàlla walla bokkaale ñu ne la tajuuzu du dagan alsalaatu fiha julli fa walla def fa jaamu yàlla du dagan wa kazalika law araada almuslim an yasbaha bi makanin yusbahu fihi li gayri llah kaana xaraman lima fihi min altashabbuhi bilmushrikin boo jëloon lenn nga war ko rendi nga ñëw ba ci barab boo xamante ne guy la ñu fay rendil ay xërëm wala ak ëkk la ñu fay rendil ay xërëm wala ñu fay bokkaale wala ñu fay tuur amoo droit rendi loolu nga bëgg a rendi foofu bu fekkee yàllaa ko moom ndax fi nga ko bëgg a rendi mbirum bokkaale la place bu ñuy moyee yàlla la kon ci masala yu mel nii est-ce que kon dina dagan nit dem stade julli fa ci masala yu mel nii ndax dina dagan nga dem cinéma julli fa ci masala yu mel nii ndax di nga dem allahu akbar ay buñ koy lim ndax Sénégal dinañ fi julleeti ndax barab bu ñuy mooy yàlla yëpp borom xam-xam yi dañoo tere ko fa jaamu yàlla fii da ngay gis benn waaye boo xamante ne benn benn benn mbaar mu ñu tabax di damier mbaaru damier nga gis gars yi di damier ba ci yàgg nga gis ñu jóg jàpp di julli ñoom ñëpp ñu jóg ñu am imam ci même place bi bi ñuy damier nga gis imam bi ci damier kat yi mu jóg ñu ne allah akbar ñoom ñëpp ñuy julli te ngeen jàng barab bu ñuy mooyee yàlla kenn du fa julli ñi dem yee nag la ñooñu laa ñemee wax ñi dem yee ci barab yooyu ñooñu laa ñemee wax fii tey da nga gis lu bare bari ci ay place yu ñuy moy yàlla ay nit di fa jaamu yàlla jàpp nañ ne sax wa non lii moo gën parce que comme fii dañ fi mooy yàlla man bu ma fi jaamu yàlla damay am tiyaaba déedéet dañ koo tere ñee ba ñu tabaxee barab barab bi mbir mi nekkul yàlla yonent bi bëgg a dem julli ji fa yàlla da koo tere lan la ko yàlla wax laa taqum fiihi abadan bu yemoon sax ci laa taqum fiihi rek mais da cee yokk abadan bul fa taxaw ba mukk lu tax parce que barab ba defuñu ko ngir yàlla kon na leer ci ñun ne am na ci ñun ñoo xam ne yenn barab yi ñuy jullee amuñu julli yenn barab yi ñuy dem di fa def jaamu yàlla te barab yi nekk barab yu mooy yàlla amuñu jaamu yàlla lu tax ndax loolu day wane ne day nuru nuru lu yéeféer nuru nuru lu yéeféer te ku nuru nuru lu ay nit yonent bi nee na yaa ngi ñoom a yem man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum te gis te yenn xew-xew xew ci Sénégal nga gis benn waay ne noo man damay dem parce que nangam ak nangam ak nangam comme question yi ñu doon laaj fii loolu kenn du ko def barab bu ñuy moyee yàlla bu kenn dem boo fa demee da ngay am bàkkaar man kassara sawdaa qawmin fa huwa minhum ku bëril mbooloo ay nit yaa ngi ñoom a yem ku dugg ci mbooloo moo xam ne bokkoo ci yaa ngi ñoom a yem donte ne yow da ngaa naan nangam ak nangam yaa ko laye rek yaa ko laye waaye waroo faa dem ndax yàlla yóbbuwu la fa yonent bi yóbbuwu la fa mbokk yi sanaullahi ala al masjidil quba wa ahli yàlla tagg na masjidul quba ak ñoñam xasallahu subhanahu nabiyahu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala salati fi masjidi quba allazi ussisa ala taqwa min awali yawmin tubna fihi sunu borom subhanahu wa taala soññ na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu julli ji masjidu quba lu mu sori sori sori sori demal nga julli ji foofu ndax foofu la tax ñu tabax ko yàlla rek a tax jàkka jooju nga xam ne dañ koo tabax ci ala taqwa ci ragal yàlla ca premier jour ba ñuy teg peer bi loolu lañ ci yéene woon yàlla nee na yonent bi jàkka jooju moo yey nga taxaw ci fa tasharraa ziyaratuhu kama kaana nabi salaa sallam yazuruhu wa yusalli fihi nee na yàlla yoonal sant yonent bi na dem ziyaare ji jàkka ji di fa julli comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon defee mu ne soo xoolee sahihul Bukhari yi di nga fa fekk ngëneelu julli ca masjidu Makka ak Madina ak Quba ngëneelu julli Makka ngëneelu julli Madine ngëneelu julli Quba ndeysaan booy dugg Madine masjidu Quba mi ngi fa jàkka ju njool ju weex tal ak sooroor yu weex yi nga koy séen yent bi sallallahu alayhi wa sallam daana dem di ziyaare ji jàkka jooju di fa julli mu ne waqad asna allahu subhanahu ala ahli hadha al masjid yàlla tagg na nit ña nekk ca jàkka ja ñoñi jàkka ja yàlla tagg na leen li jamihim bayna taharatayni ndax dañoo boole ñaari mbir yu yàlla wax ci aaya bi yàlla da leen a tagg ci aaya bi loolu moo tax yàlla subhanahu wa taala jagleel leen yiw wu rëy lan la wax fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu ay nit yu bëgg a laab yu bëgg set ñoo fa nekk ay nit yu silwise yu set ñoo fa nekk maanaam ñii yàlla moo leen xam la nekk seen xol lan la ñu fas moo tax yàlla mu ne ñii dañoo baax jàkk jële ña fa nekk lan la yàlla wax ay naafiq lañ jàkk ji ñu fa nekk lan la leen yàlla wax ay nit yu laab yu set kon kay yàlla du seede ba pare ñuy sikki sàkka ñii yàlla moo wax li nekk ci ñoom ñii yàlla moo wax li nekk ci ñoom ñan ñoo ci nekk ci dëgg ñii yàlla wax ne ñoo baax ñoo baax ñee yàlla wax ne ay naafiq lañ ay naafiq lañ ndax yàllaa ko wax ndax dañoo boole ñaar moo tax ñu yeyoo yàlla bëgg leen subhanahu wa taala wa huma altahara almaanawiya wa hiya taharatu albadan min alshirki wannifaq dañoo boole première laab ci boppam maanaa bi boo koy boo koy seet mooy laab ci yaram ci sa xol ci bokkaale ak naafiq yàlla nee na ñii duñu ay naafiq duñu ay bokkaale kat ñaareel bi mooy dañoo laab ci laabu biti bi ñuy gis yaram ak salte ak sobe dañ cee set kon ñaari laab yépp ñoom dañ koo laab moo tax yàlla seede leen ne ñu baax lañ fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu ay góor ñoo fa nekk yoo xam dañoo bëgg laab laab ci ñaari maanaa yi laab ci bokkaale ak naafiq ak laab ci wàllu zahir te mooy laab ci sobe yeeg yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yi mu ne wa fil aaya isbaat sifaatu mahabbatullahi subhanahu ala ma yaliqu bi xala bi jalalihi wa azamatihi li ci gën a rëy ci lu leen yàlla seedeel yàlla nee na ñii dama leen a bëgg wallahu yuhibbul mutatahhirin yàlla nee na man bëgg naa ñu laab maanaam ñii lan moo tax yàlla bëgg leen est-ce que dañoo julli jullee tax yàlla bëgg leen woor moo tax yàlla bëgg leen ndax aj màkka moo tax yàlla bëgg leen ñii nekk masjidul Quba la moo tax yàlla bëgg leen dañoo laab kon yow mi dégg loolu lu la war mooy nga laab ci ñaari laab yépp nag laabal sa xol laabal sa yaram laabal xol bi bul nekk naafiq mukk ci àdduna bul bokkaale mukk ci àdduna waaye laabal sa yaram ci sobe ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yi ci aju ndax ñaar ñii ba ñu laabee ñaari laab yi laab laabu biir laab laabu biti lan la leen a jural seen laab googu mooy yàlla bëgg leen wallahu yuhibbul mutatahirin yàlla nee na bëgg naa ñi laab kon mbokki jullit yi dina jaadu wér ci ñun ñu xam nit ñu njëkk ña lan lañ defoon ba yàlla bëgg leen yonent bëgg leen yàlla yemul ci bëgg leen rek waaye yàlla wax ko ñu koy jàng depuis septième siècle ba tey xoolal ñii boobu ba léegi ñu ngi koy jàng mbir mi tas ci àdduna bi dugg fu nekk yàlla wax ne ñii bëgg naa leen ku yàlla bëgg lu la dese loolu moo tax bu ñu jàngee yii danañ xam ne am na ñoo xam ne bu ñu ñëwaatee ginnaaw lii yàlla wax ci ñi ko doon yàlla doon ko wax ñu wax ci ñoom yeneen wax ñun ñu dégg wax ji ban lañ ci war a gëm su yàlla ne bëgg naa waa masjidu Quba te waa masjidu Quba kon ay lan lañ ay saxaaba lañ ay jullit lañ ñeneen ñëwaat di wax ci saxaaba yi lu jaaduwul kon ñun ñu war a bégloo lan la lan lañ war a wax ña yàlla doon génne seen mbir di ko leeral yàlla wax na ko keroog ba ñu piégé yonent bi saa salaam tabax seen jàkk defar ba mu rafet yonent bi ne leen ñu ñëw ci yonent bi ne ko jàkka ji dañoo bëgg ñi mënta ñëw fii ñëw foofu bu tawee kenn du tooy bu naaj bi tàngee du laal kenn ñi amul kàttan ñi nangam nangam rafetal ba mu rafet ba yonent bi solu bëgg a dem yàlla ne ko déet jàkka jooju kat dañ laa coup d'état dañoo bëgg a tàqale jullit yi ay naafiq ñoo fa nekk bëgg a diviser jullit yi yonent bi saa salaam joxe ndigal lañ dem màbb ji jàkk ji kon doomu ndey yi sunu darsu tey mu ngi doon jàngal bunt boo xam ne fu ñuy mooy yàlla subhanahu wa taala kenn du fa jaamu yàlla moo tax mu ne laa yusbahu lillahi kenn du rendil yàlla bi makaanin yusbahu fihi li gayrillah lépp lu ñuy defal yàlla doo dem ci barab boo xamante ne dañ fay mooy yàlla nga ko fay def lu tax parce que yàlla dafa set yàlla dafa laab inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyib yàlla dafa teey dafa set dafa sell du nangu lu dul leneen yàlla bëggul diineem ji ku ko bokkaale wala nga jël ay mbir di ko jaxase ci lu ci bokkul li yàlla moom nañ ko ko jox moom kese li keneen moom ñu jox ko waaye yàlla bëggul jaxase mbir yi bëggul ko jaxase li tax nag tey su lu bëri réer ci ñun mooy masala yi la ñuy jaawale parce que peeguñu masala yi jànguñu ko barkaati démb dama jokkoog benn boroom xam-xam bu mag doon ko laaj benn masala mu ne ma lii de mooy aada nit ñi aada nit ñi mooy bala ñuy laaj lan la yàlla wax ñu def seen mbir ba pare doog a laaj lan la yàlla wax mooy le médecin après la mort dañuy def seen mbir ba pare doog ne lan la yàlla wax fekk yéen pare ngeen léegi bu ñu la waxee li yàlla wax fekk léegi ak li nga def dëppoo loo ci mën a ah bu fekkee luñ ko luñ mënta rectifier la nag léegi loo ci mën mooy yow def nga li ngay def ba pare léegi bàkkaar baa ngi fa ñu bugg ko lay dañoo juum ak bañ koy defee xamuñu woon ak ngeen njëkk li ngeen mujj. lan lañ mujj laaj njëkkee leen laaj alxuraan kan lay xoon ne fas alu ahla zikri in kuntum laa taalamun bu ngeen xamul laaj leen allaxdari bu njëkk bu gën a tuuti bi ñu jàng Sénégal lan la wax wala yahilu lahu an yafala filan hatta yaalam hukma allahi fii yow julit amoo droit def dara te lii ngay def xamoo lu ci yàlla wax amoo ci droit dara balaa ngay def dara da nga war a laaj lii ma bëgg a def lan la ci yàlla wax ak yonent ñu wax nga def gis nga tey joxe misaal yu baree bari ci ay mbir yoo xamante ne dafa am ci Sénégal dara warulu ko lu dul damaa bokk ci tariixa wala damaa bokk ci groupe wala damaa bokk ci mbooloo wala damaa bokk ci lii moo tax ñun nañ def lii bu fekkente ne yow bokk ci mbooloo wala yéen bokk ci groupe wala bokk ci kër moo tax ngeen def lii est-ce que kon amati na njëriñ yàlla taxatul parce que mbooloo maa tax wala groupe baa tax wala lana tax ah kër ga nga bokk ñaata yoon ngay dégg ñu ne ñun fii lii li ci ah dañoo war a def dara ndax kër gi peut-être lii wala ndax léegi ngeen dem ndax loolu léegi amatul yàlla da ngaa war a wax nañ def ngir yàlla waaye nañ def ngir kër gi wala nañ def ngir mbooloo mi nañ def ngir sàmm nañ def ngir su boobaa léegi dootul nekkati xew-xew bi xew tey soo ubbee rajo yi nga gis ñëpp di wax chaque jour loolu la ñuy wax rek le merci après la mort tey li nit ñi ragaloon wax yëpp ñëpp a ngi koy wax pourtant lii nit ñi xamoon nañ ko xamoon nañ ne lu bëri ci mbir yii di xaw fii daganul mais ñëpp noppi ah xamoon nañ ne niñ fay mayee sëy yi daganul xamoon nañ ne diine amu fa xamoon na ne fola ak caaxaan ñëpp xamoon nañ loolu mais ñëpp noppi léegi nag bu ñu nekk après di waxaat luñ ci mën li may li ma wax léegi le médecin après la mort ban njëriñ la amati ñii yàqu-yàqu nañ ñaata nit ñaata xale ñoo fa juddu ci sëy yu araam yooyu ñaata nit ñoo fa juddu ci sëy yu daganul yooyu ah ñaata nit la fa seen avenir yàqu ñaata doomi jullit ñoo fa sànku ñaata nit ñoo fa nar a jóge rek dem safara direct kenn xamul nu mu toll mais kenn waxu te ñëpp xam nañ ne lii du dëgg ñëpp xam nañ ko parce que lu dul alquran du sunna du dëgg na ñëpp noppi mais tey gis nga journée wax moo jot ñëpp di wax fekk li passé passé na kon nañu soññaat suñu bopp jéem a mooy ci dëggu yàlla gi jéem a mooy ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu saxal ñu ci yonent bi saa salaam da doon jékki-jékki ba ci yàgg mu ne allahuma ya musabitul qulub sabit qalbi ala taatik yow yàlla mii saxal xol yi ci jaamu la yàlla nga saxal sama xol bi ci jaamu la allahuma ya muqallibul qulub sabit qulubana ala taatik yonent bi loola doon ñaan jàngeen sax ci alquran mu ne rabbana la tuzig qulubana baada is hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka anta alwahab assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu amin wa iyaakum